wallu euh, gouvernement bi duñ ci doolaale wala a président ni ñu la defee action léeg-léeg ci école yi nga xam ne mooy école yu mag donc loolu dañuy yemale xam ne ñëpp ñoo xam ne ñëpp ci wax ak lii mooy li ñu nekk am na loo ay crédit ñu ngi nekk ay CM2 wala yooyu ñoom mun ko mën a utiliser aussi ñu jox leen ko donc loolu yaakaar naa ne mi ngi fi am na leneen lu fi des loo xam ne dañu ko war a génne bu subaa ndax caabi jee nekkul pour mottali bagage pour mën leen kaa jox di sant baax di leen gërëm ci taxawaay bi ngeen taxaw ci njaboot gi ak xam-xam bi ngeen dugal ci njaboot gi xam ne aussi li ngeen cey dugal kenn mun leen kaa fay xam nañ jafe-jafe aussi yi ngeen di dund waaye nañ ñaan yàlla yàlla def xéewal yokk xéewal gi ba bu ko taxawalee mu dem a dem ba nekk ay 500 millions wala 1 milliard nga xam ni ñëpp nañ ci a xaj ñëpp nañ ci mën a bopp ndax li fi ñew askan wi ak mom conseil ministre momu ñu ko maire momu ko bureau municipal ñu ko askan wi lay wat donc bu delu wat ci askan wi nak day yellu ñun kenn ku nekk aussi di ci bay war di ci wax pour aussi lolu ñu fexé mëna fexé ba yok parce que buñ ko yokk aussi tay doon ci nit ñi bu yokko dekk bi gëna a leer bu yokko ñu mëna taxaw école yi mëna taxaw wérgu yaram mëna taxaw bi mëna taxaw ñëpp nga xam aussi war na leen taxaw donc lolu daal yaakaar mo doon kàddu ñu ci sanni xamal ni nak renji amna lo xamni aussi bëgg nañ ka def ndax comme yalla dafa dogal aussi ngeen di yëngatu ci loolu ñu bëggoon def li wax grand prix du maire du Coran récital de Coran loolu nak xamna ni bu jëmmi jamana toge il faut yi ngeen waxtaan ci ak daara yi ñu sét nañ leen koy teunké ba buñ ko def juru tam xarit nga xam moy sunu at mu bees ñu def ko ci bu ko defé ñu ñëm ñu dajé ñu génné xalé yi fek guñ ko ko bi na paré ñu mën leen a woo neexal xalé bi ci dàq jang té alcorane en tout cas ren jii moom incha allah nan ko def te prix bi ñu bëgg a commencé dama bëgg def un million boo xam ni ñetti premiers yi lañ koy jéem a ñooy seet nag après bu ñu waxtaanee nu ñu koy répartir mais loolu daal bëgg nañ yéen seen wàllu bopp ngeen jéem a seet woote waxtaan nu ngeen koy parce que loolu ñun mënuñu kaa organiser ndax yéen daara yéenay ak ak waxtaan nañ leen ko defee nii bu ngeen defee seen sélection ba pare ni prix baa ngi nii tekk seen loxo duñu xam ku raw duñu xam ku rawul ki yéenay seet ki raw ak ki ci topp ak ki ci ne leen primé su yàlla dogalee diggante bi nag partenaires yi jàpp tamit ñun li génn en tant que maire muy prix du maire pour le récital du Coran bu ma yokk tamit ñu yokk ko rek mais daal fi ne ni base bi ñu départ muy 1 million moom leen bëgg génne ren teg ko taabal ji bu fekkee ñetti premiers yi dañ leen koy séddale ñu séddale ko ñetti premiers yi souvent nag yéenay seet ni mu gën a rafete ñu waxtaane ko bu jubee noonu mais daal dañ leen wax xalaat bi bu ko a dina mën loo xam ne aussi dina leen jëriñ yéen ñëpp daal incha allah ci sant nañ ñep gëreem nañ ñep Baye As euh, di leen di rafetlu jotaay ak teway bi den wax ni di santar bu baax baax président ci vraiment taxaway bi ngeen am ci diine ji ak jàppale ngeen di jàppale xalé yi jàppale ngeen jàppale njabot gi. bokk yi fii daje ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gëreem di leen sant di wax ni daje nañ fi dajé mo xamanteni et eh, pour mot yene bo xamanteni maire daf ko amone mu di ñi nga xamante ni ñooy jàng ci l'école arab yi ñu am lu leen jàppale naam daana ko def wante ren jii ku nekk dégg na si le président de la république mu ni nanu dugal njàngaleem arab mi ci li nga xamante ni mooy ndimmal yi ñuy dimmal ñu boole leen ci loolu nag bu amee yàlla def ñu am fii kuréel goo xamante ni ñooy yëngu ci wàllu njàngale moom organiser wu yombalal na maire li nga xamante ni mooy liggéey bi mu doon def ba tax na muy jàngalekatu arab yi muy jàngalekatu daara yi ku ci ne bëgg na la jàppale ren jii nag mu am lu mu génnee muy ay fourniture fourniture nag ku ne xam na ni e, xale bi nga xamante ni day jàng ci école arab li muy soxla mooy ay kaye ak craie ak yu demee noonu yooyu nag la jël muy loo bu am solo ngeen gis ko ni mu ñëw di ko jébbal ñi nga xamante ni ñooy waa kuréel googu nga xamante ni ñooy jàngalekatu arab yi ñuy am mbégte nag ak kontaante lool. ndax itam wax dëgg yàlla si lanu bokk ndax lépp mënees na ko wax waande bu dee diine moom bu nu nee jàkka ja diine la bu nu nee armeel ya diine la bu nit juddoo diine la kon nag ñooñu nga xamante ni ñooy taxawu barab yooyu nga xamante ni tey jii mooy wàllu diine ji ñoom ñooñu lu nu leen mën a dimbalee lu nu leen mën a jàppalee dafay baax e wax na léegi si li nga xamante ni mooy pay gi pay gi de bu fekkonte ni sax budget bi nu am bi nu bi nu bi nu yéene am nan ko parce que yenn kii ñu ngi si budget un milliard waaye ne Kayar tolloogul foofu bu ko amoon foog naa ne jàppale bi war jàpp bi nu war a am sax dëgg-dëgg mooy jàppale ki nga xamante ni mu ngi sol xam ci bopp ki nga xamante ni mooy xale yi ndax njàngale dafa metti da ngay bàyyi sa temps bàyyi sa lépp consacré wu si li nga xamante ni mooy xale xale bu tuuti boo xamante ni xamagul dara nag nga jëgg bëgg koo jël def ci moom dara loolu ku ne xam na ni coono bu rëy la moo tax ñuy ñaan yàlla yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla kattanal yal na leen yàlla dooleel ndax ñi ngeen di former ñooy former ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoom cheikh oustaz cheikh mi imam foog naa ni ñu ngi jaar si Mouhamadul Amin Niang e fa law barkeel na ndax ñi mu fi génne ci ay dongo yoo xamante ni ku ci ne man nga nekk imam bari na lool tey jii moom itam mu ngi former ay gune yoo xam ni ëllëg ak si biir dina mën a am taxawaay yooyu kon dañuy dellu si gërëm ki nga xamante ni mooy le monsieur monsieur le maire Alioune Ndoye rek di ko wax fii nga teg sa tànk si jàppale population yi bu mu dellu gannaaw ndax nit amul lu may population gis na nañu yaa ngi jàppale école yi yaa ngi jàppale daara yi yaa ngi si social bi yaa ngi si fépp foo xamante ni nit mu nga fa yëngu loolu nag la ñuy doyee maire newuñu ko nga may nu xaalis newuñu ko nga defal nu dara waaye fépp foo xamante ni nii population ba taxaw nañ fa bu nu gëstoo gis la rek seen xol dal di sedd loolu la ñuy doyee maire kon yooyu itam ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na la yàlla yàggal ci euh, lii nga xamante ni mooy mairie bi mébét yi nga ci amit yal na la ko sunu borom defal bi barakat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofu daal lay wàccee sama kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullah أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi nga xam ne mooy nuyoob lislaam di baati asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu te baat yooyu ëmb jàmmi yàlla yërmane yàlla barkeb yàlla yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole ko sëmbërtal suñ kaw di ñaan yàlla subhanahu wa taala su ndaje mii yàlla na bokk si ndaje yi nga xam ne nii ëllëg yomal xiyaam dañuy dugg aljanna di koy seetaan ndax ndaje la moo xam ne nii ndajem diine la te yonent alayhi salaatu wasalaam loolu lim si wax rëy na bokk na si yàlla subhaanahu wa dafay yebal ay malaaka yoo xam dañuy seet jataay yoo xam ne nii jataayu fàttalante wàllu diine la te bu nuy wax fàttalante wàllu diine nag lu jëm si jàppale wàllu eh, njàng njàngum alquran njàngum diine loola dara jiitu ndax sax dañuy wax ne tabax jakk limi muy rëy euh taxaw li nga xamne ni mom moy jangu euh, fi ni jàngee moom mooy li nga xamne mom moko wara jitu ndax la ñuy def sa jakk ji ñi ngi koy ci si daara ja kon jotaay bi yalla bu mbokk ci jotaay yo xam dañ ko reccu ëlëk yomal xiyam wax deug yalla di am contenté bu baax di wax si turu euh, kat ci arab bi ne ci commune bi euh, yalla subhanahu wa taala dogal ñu am ben rabita boo xam ne nii moom moo ñu lëkkale nga xam ne nii ñu ngi ànd di yëkkatindoo di dóorandoo di nas di nocci ba wax dëgg yàlla di mën a amal yoo xam ne nii kenn ku nekk bu wéetoon sab ruq rek xëy na da nga liggéey de waaye nag euh, buñ boolee ànd def benn li ñuy mën a liggéey duñ ko mën liggéey bu kenn ku nekk wéetoon sa ruq wax dëgg yàlla euh, mbooloo mu doon mbooloo moo xam ba mu taxawee ak léegi gis nañ si suñu bopp bu baax waaye gis nañ njariñ loo xam ne mi ngi koy def si dëkk bi kon si turu mbooloo moomu la ñuy waxee ndax ñun la yàlla nattu fi mu toll nii ñu nekk si bopp bi kon daal euh, monsieur le maire mbooloo bi yëpp wax dëgg yàlla ñi ngi ànd di la a jëfal wax dëgg yàlla xam naa ne lima ma yëg gëm naa ne moom la ñëpp yëg te li may wax sama xol laa ko tibbee buñ ñu joxutoon benn benn benn kare waaye kàddu yi fi jóg rek wane na ñun ak yéen kat ñoo bokk mbir mi ñun ak yéen ñoo bokk luñ bëgg lu jëmale njàngam diine mi kanam moom moo ñu ñor xëy na mënul lu bari waaye lun man danaan si jàpp ñi ngi seen ginnaaw fas yéene jàppale leen kàddu yooyu rek dafa seddu suñ xol kàddu yooyu kàddu yi mbir mi ñoo ko bokk mbir mi si ngeen bokk bokk euh, ñi ngi taxaw seen wet damay wax ne bu dara génnutoon bu demee dul xarab bu dara dëgg du géntoon bu ndemeetul xarab parce que it euh, olof day wax ne gor du wax ma waaye mosuma lay wax waaye kaddu yii ñu fi dégg rek kàddu yi ñun suur nañu wax dëgg yàlla alhamdulilah yal na yàlla subhanahu wa taala gën a dëgëral yal yàlla subhanahu taala gën a jàppale lii nga xam ne nii moom ngeen def muy lu am solo yal yàlla subhanahu wa taala defal ñu ko defal leen ka sa seenu misaanul xasanaat def ko sa la nga xam ne nii ëllëg yamal xiyaam bu yàlla di peesee suñuy jëf li dana bok sa la nga xamne ni mom mo kay diisal ndax nit dana def mbir mu manam mu tuti lol si ay telisak te li sax tuti wut waye fekk na yow mu rëy sa yalla la yalla subhanahu taala do wax na lele nit wax genn kaddu wala mu jëf genn kaddu wa taxsabuunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim ngeen yaakaar ne lu lu la waye fekk lu mag la sa yalla kon li lu reey la sa yalla subhanahu taala ndax euh, kenn ku nek fa na nga tollu non ngay joxe na nga tollu non ngay joxe sa bir kaddu day gënal si ne buñ amoon lu ëpp lii joxe lu ëpp lii te ñoon loolu luñ gëm la alquran dañoo wax ne li yunfiq du saatin min saatihi wa man qudira alayhi risqu fal yunfiq mimma ataahu llah ki nga xam ne ni moom moo am lu bare na joxe ni mu toll waaye ki nga xam ne nii xëy na fee la dooleem toll it na joxe lu tol ni ni nga xam ne nii fa la dooleem toll bu boobaa kenn du ko xeebal loola kon lii doon na loo xam ne nii rëy na si ñun lool doon na loo xam ne nii màgg na si ñun lool doon na loo xam ne nii wax dëgg yàlla am nañ si mbégte bu baax a baax a baax a baax a baax donte ne monsieur le maire si biir kàddoom mi ngi ubbee ne ñi ngi jéggulu yéex gi noonu la ko yàlla subhanahu taala dogalee loolu la ko yàlla subhanahu taala dogalee ñi ngi àndee di nangu loolu bu baax a baax a baax a baax a baax parce que ñun xam na ne si commune bi lañ bokk xam na ne ñi nga xam ne ni ñoom ñooy def loo xam ne ni moom mooy euh, jëmale commune bi kanam jàpp nañ ne si lañ bokk parce que it aw lu dul dañoo jàng waaye njàng munta wér lu dul njàngam diine la sun maam euh, Cheikh Ahmad Bamba day wax nan inna allazi lam yaxsha rabbal alamin walaysa bi alim walaw afnal funun ki nga xam ne nii ragalut yàlla bu jàngoon fànn yëpp waaye jàngut diine ba mën ragal yàlla kooku nekkut borom xam-xam kooku nekkut borom xam-xam te li nga xam ne nii moom la musulmaan yi yëg ne ñi ngi koy taxawee si wàllu njàng mi loolu aw askan mënuñoo yëkkatigu lu dul dañoo jàng yéen itam alayhi salaam dafa wax ne képp koo xam ne nii bëgg nga sa àdduna jàkk àdduna yow àdduna kese moo la itteel yéen saa sam ne ku bëgg sa àdduna jàkk donte ne àdduna kese la itteel man yéent bi li ma lay dénk mooy demal nga wuti xam-xam mu ne képp koo xam ne da bëgg sa àdduna jàkk sa alaaxira jàkk li ma lay dénk mooy demal nga wuti xam mu ne képp koo xam ne nii ah fan képp koo xam ne da ngaa bëgg sa àdduna rek jàkk wutil xam-xam képp koo xam alaaxira rek nga bëgg mu jàkk wutil xam-xam képp koo xam àdduna ak alaaxira yëpp nga bëgg mu jàkk demal nga wuti xam-xam mu ne nag képp ku bëgg xam-xam fa alayhi bil quran maa ngi koy dénk lu muy mën a jàngit alquran na sa bokk alquran na sa bokk ndax alquran moom mooy li nga xam ne nii bu jiitoo lépp lu ñëwaat yomb waaye la ñuy wax ne sax xam-xam yépp si alquran la génnee kitaabu xayril wara aslul ulumi maan wa huwa al kitaabu allazi man raddaw xurima maam si ahmad bamba nee na alquran moom mooy téeram gën ji bindeef nee na lépp xam-xam si la jógee nee na nag képp ku wan alxuraan ginnaaw lépp luy aw yiw yiw àddina ak yiw alaaxira ñu xañ la ko loolu boo ko gisee lépp luy xam-xam si la jóge loolu yomb naa wax ustaz Lamine Niang rahimahullah bu dee fàttaliku da daan firi alxuraan bu daan firi ba àgg si ay yi nga xam ne day wax si gaal yeeg yooyu ba ba ne waaw gaal yi bu moo mool yi bu seen gaal jël saako koy suuf yi def si ak di wax si mel léeg-léeg nga dégg am ko ne ustaz xanaa da jaar géej mu ne ko déedéet ko jëlee ndax yàlla subhaanahu wa taala mu bindee suuf si suuf si ba mu paree da doon baj baji def nii nee na ma jël montagne yi ak xeer yooyu daajee kaka ba mu ne degg mu ne kon mool yi saako suuf yooyu ñuy dugal si biir géej kooku ñu loolu ñu ngi ko jëlee foofu ak bépp xam-xam tamit boo jeexee rek di nga xam ne si biir alxuraan la génnee moo tax benn waykatu alafal doon wax naan téere bi ku ko xam baye boo taxawaat ne jàng naa li fi gën téere bii du caaxaan làqoo na lépp lu ñuy xam soo xamul nga ñëw seet te ubbi tambule jang bismillahir rahman weyel te yow baña tay do doo si wala isib wala ay luddul mu ñew di keman kon alquran lool leppam la kon ki xamne mom mo taxaw di jappale alquran ha ah, koko def na lu rëy yénti ali sallam neena won yow julit bi nekkal ko xamne ni koy jang koy jangale nga wala nga don ko xamne ni koy jang nga wala bo nga don ko xam kuy dimbalé koy jang nga wala bo nga don ko xamne ni ku len bëgg nga neena na nekk ba ndax bo nekkee juromel ba nga alko kon lii nag li muy tekki mooy monsieur le maire bii mu ànd ak ñoom bokk na xam ne ñoom ñooy dimbale ñi xam ne ñoom ñooy jàng kon euh, si turu stage yëpp ñu ngi leen di jërëjëfal di ñaan yàlla subhanahu wa taala lii ak bépp jëf ak bépp yéene boo xam ne yéene ko yéene askan wi yàlla na yàlla subhanahu wa taala euh, sottal ka waaye yàlla na yàlla subhanahu wa taala def yàlla ay kese tax yàlla subhanahu wa taala defal ñu si avance euh, muy avancement si dëkk bi mu doon loo xam ne nii avancement la woon si commune bi waaye si li nga xam ne ni moom mooy sun euh, mbiru àdduna yëpp waaye li nga xam ne moom mooy sun mbiru ëllëg alaxira tamit kon incha allah monsieur le maire ñu ngi lay jërëjëfal ustaas yi kontaan nañ teew nañ oustaz Cheikh Pouye mi ngi nii taxaw suñu kanam incha allah di fas jël image yëpp bu paree dugal ko si yi nga xam ne ni moom mooy groupe bi oustaz yeeg yesa aju oustaz euh, Hamza di kenn moom it koo xam ne nii jiite woon na group bi nga xam ne nii ginnaaw euh, euh, man maa ngi ko jëlee si loxoom mi ngi nii sama wet oustaz Paate mi ngi nii sama ginnaaw suñ xool tamit di suñu mbokk daara mi ngi ne si sunu ginnaaw macha allah Euh, ak ñi nga xam ñoom ñoo fi teew ñëpp di jërëjëfal ñëpp monsieur le ak ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp di ay góor ak ay jigéen ak sunu mbokk yu baax yi nekk di caméra di def lu am solo ñu ngi a jërëjëfal ñëpp di am kontante di fésal suñu kontante wax dëgg yàlla ñëpp bëggoon nañoo teew ñëpp ba sànq bu may xool message yi groupe bi message yaa ngi maar ñoom ak kenn ku nekk yaa ngi envoyé naan yaa lay tani kuntu fi Kayar mooy ak a neexoon tey ma nekk Kayar ba mën a teewee mbir mi ñoom oustaz Cheikh Diouf ñëpp wax dëgg yàlla ngant moom moo leen téye parce que ñu baree baree bari alxamis ji nii dañuy doxi seen yeneen itte euh, nekkuñ si dëkk bi loolu moo tax euh, mbooloo mi toll nii waaye kon euh, daal si gàttal daal kontaan nan ñu ngi lay jëfal ñaan yàlla subhanahu taala defal ñu tawfiq kon xam naa dañuy wàcc foofu suñu kàddu li oustaz yi bëggoon ñu wax kan xam naa ne ëpp na loolu xëy na sunu tëlee wax ak sunu gàttañ lu moo tax ñu yemale ko foofu aqulu xawli haza wa astaghfirullah li wa lakum wasalaamu aleykum wa rahmatullahi